y no caí asalaamaaleykum ci di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivre sur Kewel Info fa nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp du nuyu suma sëriñ ñoo tax responsable moral daatu Moussa Sy dina Moussa Sy daal na fi yàlla def jàmm tey nag ñu ngi fii si Géejawaay ko suñu écran Marley di ko jaajëfalaat bu baax a baax wax dëgg yàlla sama xarit dama koy bett rek ñu ne ko rek <laughs> noo ko fàtt maa ngi koy jaajëfalaat bu baax a baax ah. di ko ñaanalaat tan sama xarit bi maa maa ngi la koy delloo di la nuyu bu baax a baax a baax di baalu ñëpp àq ci koor gi di baal ñëpp àq di ñaan yàlla na jàmm yàgg di la fay bu baax comme jinne nga koy heure bu la neex ngay génn defal a neex rek garaawul amul problème. Mhm. yéen man maay sarax ah la demee de sarax bi moom tey moom wane na ko tey moom wane na ne yaay sarax bi loolu kenn mënu ko dindi. waaw eh, naka koor gi. koor gi waa naaj ñu ci kawam ah ñu ngi ci kawam yaa ma gën a xam xam nga ah, ren nag moom mooy li wax rek man moom dama nekk lépp lu nekk ci man naturel la quoi comprendre nga du ma fi toog naan ay dama woor te wooruma chaque weeru koor bu ma gars yi jëlee fekk ma woor dama naan leen dama woor mais ren yaram bi moo ko nanguwul moo tax xam nga seere yàlla moo tax wooruma quoi. mi mm. man la bu mu jëlee ba mu gëjee ci kombaam ak mbay guy gi ba tey dafa tawat tawat ba tawatu lan la. waaw sant naa si yàlla bu baax a baax tawat la kom tawat yi dal nit ñi rek xam nga waaw mais sant naa bu baax a baax fi mu toll nii moom maa ngi alhamdulilah waaw. parce que on dirait que ni ba nga pare Marley ne nekk fi woon dafa voyagé woon mais Marley dafa amoon problème digg. <laughs> waaw mais loolu weesu na comme li ma leen di wax rek loolu weesu na làmb làmb jooju weesu na xam nga li si am sant nañ ci suñu borom li ñu jànkoonteel si làmb jooju bëre waale ko ñu jege xam nañ mais tamit sant yàlla la quoi. moo li ma wax rek victoire jàmbur kenn du ko salteel. mais moom nga doon faj. ndax dégg naa moom kenn gëju ko man moom damay wax li nga Marley depuis boobu ba tey mi ngi faj ndigg bi ndig bi feebar loolu feebar lan lool. ah mais feebar bi dal nit ñi rek comme feebar yëpp rek xam nga comme li may wax rek doomu aadama moom boo demee ba toog xam nga di expliquer rek sant la quoi. dafa jàppoon tànk <laughs> naa bu baax. internautes yi parce que ñoom dañ ñi ngi doon am fan yee man am naa benn suus que ni donte maa ngi yow sax gëjoon nañu déggante. waaw que feebaroon ba xaw a jàpp tuuti tànk yi. waaw lépp rek sant xam nga tawatoon naa tane naa alhamdulilah waaw bu baax a baax a baax waaw. kon mystiquement dañ laa atteindre. waaw bàyyi ma ak mystiquement waaye. mbay guy gi daal leen bàyyi mbay guy gi bàyyi leen tooñ mbay guy gi mbay dara bëri na ma xam waaw loolu jeex na mbéy guy gi deful dara de. feebar ñëwoon rek. waaw feebar bu ñëw la rek mais mbéy guy gi deful dara waaw mbéy guy gi bëre na xam nga yàlla ànd naag moom am na ndam chaque jour li may wax rek maa ngi koy ñaanal ndam li jikko apar li des garaawul. d'accord mhm. faju nga ba wér. waaw sant naa bu baax non tare naa sant bu baax. Mhm. à part ça euh, ñu ngi lay wax ay combat wala yaa bëggut a bëree ko pour l'instant. waaw ñi ngi may wax ay combat nag ñi ngi may wax ay combat mais comme li ma leen di wax rek. dama bëgg a bàyyi saison bi tëj ba tëj xam nga ma mën a ñëwaat ak force quoi. Mhm. santé amoo force. non ñu fi sax mais maanaam boo bëggee dégg-dëgg comme ñëwaat ak force mooy ñëwaat ak beneen façon quoi xam nga tey mënoo am si loo jógee ba pare bëgg a ak ñëw bu yomb rek xaw a doy waar ñëw faaw nga ñëw ak doole quoi. Mhm. mais Marley lan mooy problème am Marley macha allah mën na bëri bëri baa ngi fi mais problème Marley lan la Marley su waree yéeg rek. am benn torof torof luy problème ci làmb Marley ba woon ak bii dafa am différence ba Marley dafa nangootul entraîner la làmb doon jox Marley da ko joxatul luy problème parce que ñi ngi dégg naan Marley dafa nangootul entraîner su jëlee ay combat waaw xam nga tey comme li ñuy wax rek kenn sañul jël làmb toro entraîner comprendre nga loolu yaakaar naa nit yebewu ko boppam te nit yebewu ko ay supporteram képp koo xamante ne am nga combat di nga entraîner parce que géew gi yaa fay nekk bu ñuy dóor yow la ñuy dóor bu ñuy daan yow la ñuy daan booy daan yaay daan comprendre kon bu fekkente ne nii wax yooyu moom da nga koy dégg wala deneen wax yàqu rek parce que man amul benn combat boo xamante ni dinaa ñëw sumeeku ñu nekkul si état mais biss bu nekk ak la ca war a xew mooy li may wax rek waaw noonu la mënoon demee man li ma war maa ngi koy def suñu borom moom mooy dogal nit fu mu war a àgg ak la mu war a am ak la mu war a ñaax yàlla noppi na. voilà man foofu laa ko teg parce que lu ma xëccoog suñu borom ndax nit ku nekk rek la ngay ut am ko da ngay ñaan mu gën si yow la ngay ut te amoo ko da ñaan yàlla mu gën si yow ndax yàlla mooy dogal quoi man tey du ma ne fii laa bëgg àgg suñu borom àggale wu ma fa ba pare ma bëgg a moom du ma doxee noonu. mais Marley Marley ba woon ak bii dafa am différence différence la âge mooy dem wala la ci mbëri dàq bëri mais lan mooy problème mu lan la. waaw mooy li ma wax rek xam nga tey du ëpp doole du dàq bëre parce que Marley tey fi mu tegoon làmb la teg làmb ndax ni mu daan pare noonu lay pare comprendre nga tey amul benn làmb joo xamante ne préparation bi war na si nu mu waree te defuñu ko mais nag yàlla mooy dogal mooy li may wax rek yàlla mooy dogal waaw man damay gëm suñu wóolu ko. te doyloo ko xam ne li war a am moom la ndax tey bëri na ñoo xamante ne ñoo ma jiitu si làmb téeméeri junni yoon te tey bokkuma ak ñoom si làmb kon àdduna noonu la yàlla suñu borom bi mooy xool lu ko neex rek mu def kenn mënu si dara. Hmm. Marley ak écurie Papa gis nañu écurie Papa Kane euh, kon yeneen écurie yi bien vrai que géej waay la nekk dafa am jàppale bi dafa des par rapport ak booy yi war a bari ndax gis nañ ni Marley Pape Thiam lañ ci doon dégg Pape Thiam gëj naa bëre comme que ñëwaat na di ko ñaan yàlla maamat combat léegi mais dafa mel ne Marley kese kese lañ ci dégg lan mooy problème mu écurie Papa Kane dafa am ay jafe-jafe combat wala dafa am loo leen ci écurie bi non école de lutte Papa Kane moom école la comme yeneen école yëpp te ñu ngi ciy sentir suñu bopp ñu ngi ciy gis suñu bopp mooy li may wax rek jàppale yàllaa ko moom yàlla moo koy mooy dimbali jaamam daal tey nit mën na ñëw teg la loxo nit mën na ñëw jàppale la bu yàlla nanguwul lu ànd école de lutte Papa ay mbër ngi fa ay champion ñi ngi fa gabaar mi ngi fa Pape Thiam mi ngi fa réparé mi ngi fa comprendre nga yeneen champion ñi ngi fa kon école de lutte Papa tey fi mu war a nekk mi ngi fa quoi xaj na comme ni nga ko waxee amul ay bonne volonté yoo xamante ne ñi ngi ñëw di teg seen loxo ci équipe beeg yooyu noonu mais équipe moom booy ñi ngi góorgóorlu ñi ngi kenn ku si nekk li làmb laaj yaa ngi koy def waaw ah, Pape Thiam comme ni nga ko waxee rek blessure moom moo ko téye woon xam nga te mi ngi sant yàlla bu baax ñu koy ñaanal yàlla gën a yokk tan gi xam nga mu ñëwaat ak doole moom parce que xale la champion gëm na boppam te na làmb caaxaanewul làmb waaw kon mooy li may wax sa saa su yàlla mooy ñëw ak rek te yàlla bu ñëwee ak mëninam sant yàlla la quoi. ci calaf bi nga xam te ne moom la Gaston production ndax su ma ce que doo dugg ci kii lan moo tax nga génnaat ci lii bi gisoon da nga jàppoon du ci adversaire potentiel ndax gis nañu garga de dugg na te xamoo woon ni garga de dugg na euh, pour affaire u calaf non affaire u yi xam nga comme li ma la doon wax rek ne woon naa la man dafa am lu ma moom ñeneen ñi am lu ñu moom si man calaf yi xool ñu si bari man lañ ci doon xaar boog pour ma ñëw dugg boo maa ngi combat waaw mais bi ñu non non man bi ñu waxee sax xam nga joxewu ma sama avis ne d'accord naa comprendre nga. waxoon nañ la waxoon nañ ma ay adversaire xam nga mais adversaire yooyu ñu waxoon it tamit du samay adversaire comprendre nga mais mooy ñi nekk si kalaaf yi ñenn ñi rek comprendre waaw yaa ngi dégg duñ samay adversaire ñenn ñi yaa ngi dégg mais nag tey bu fekkente ni nii. dama ma nekk mbër am ñu nekk sama ginnaaw am ñoo xamante ne nii damaa am lu ma moom ñoom ñoom lu ñu moom du lu ñëw tamit xam nga rek ma sóobu ko quoi voilà mais kalaaf yi gis nga mi ngi dem neex na ñu ñaan yàlla suñu borom mu réussir si jàmm rek. ñi ci nekk ñoom ñoom yaa leen yow xam nga ne ñenn ñi nekk si kalaaf yi man ak ñoom. waaw duñu duñu duñ samay ad duñ samay adversaire duñ samay adversaire. gargade waaw non gargade suma adversaire la. comprendre nga mais dafay am loo xamante ni tey bu fekkente ne nii adversaire u Pape Thiam wala adversaire u Réparé exemple xam nga ma ñëw war a bëre ak ñoom tamit lu siwul quoi baña toog bañ a bëre sax moom a koy gënal tey Pape Thiam ku mu war a bëre wala Réparé war a bëre ak moom man ma ñëw bëre ak kooku man ma bañ a bëre moom a koy gënal waaw. noo gisee na favori. kalaaf bi neex na kalaaf bi neex na non neex na moom xam nga. non de question rek favori wala dara comme ay mbër la ñuy bëri xam nga te mbër laa am na yoo xam ne du ma ko mën a wax mais kalaaf bi neex na ñu ngi leen di ñaanal mu réussir. noo gisee làmb instant bi sàjj na wala. ah làmb sàjj na de parce que làmb yaa ngi taxaw de. waaw làmb yaa ngi taxaw promoteurs yi ñu ngi wane seen bopp mbër yi tamit ñu ngi wane seen bopp parce que tey xaj na teguñu làmb ji fenn fi mooy tey boo ma fayu lii temps temps du ma bëri ñu ngi waxtaan ba déggoo ay kàddu xam nga làmb yi di taxaw te làmb loolu rek moo koy neexal làmb li koy jafee taxawal mooy nga ñëw rek bëgg a imposer leneen ne fii laa yem. comprendre mais boo ñëwee waxtaan waxtaan waxtaan mbër mi la mu bañoon sax mën na koo nangu parce que waxtaan mën na la may lu ne. Mhm. Sa Thiès ak Eumeu Sène noo gisee combat boobu. waaw combat bu neex la Sa Thiès ak Eumeu li ñuy wax day ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam rek mais Sa ndam lu seddu guy. mais combat la boo xamante ne bu neex la mais dafa nekk nag combat si biir combat yi mooy Eumeu Sène daanaan la xam nga te mbër la boo xamante ne nii dara jaaxulu ko si bëri Sa Thiès lam daan bëri la ñëw bëree noonu mais na si xaw a ànd ak dal tuuti rek xam ne ki muy bëreel mbër muy song la mbër la boo xamante ne nii bu la jëlee xam ne li mu war a def bokkut ak mbër boo xamante ne tey bu jëlee du xam li mu war a def. parce que Eumeu Sène la champion la mais Sa Thiès it ndaanaan la parce que rayante na ñafe na ba egg si fi mu te jomam ak fulaam ak faydaam ak mën a bëre moom moo ko may waaw làmb la daal joo xamante ne làmb ju neex la waaw. Balla Gaye dem na UNICEF war a bëreeg Tapha Tine ñu gis ni néew na loolu Balla Gaye di bëre ñu jax euh, adversaire bi favori te bu ñu jeexee Tapha Tine favori ci kanamu Balla Gaye nan nga gisee loolu ak tamit le fait que mu dem UNICEF changement parce que Balla bu liggéeyee day gis boppam comprendre nga Balla ndaanaan la champion la te làmbam mook tafaatin bii nii amul lum ko jaralul ku xam Balla Gaye xam ne làmb ji jaral na ko lu nekk te comme ni nga ko waxee rek fabare bi ñu bëri dañoo jël jox ko tafaatin si lan mooy à cause Balla Gaye li mu nekk moom moo tax ñii naan mag la xam nga ñii naan mënatul am doole yaa ngi dégg ñii naan mënul daan tafaatin mais bu Balla Gaye demee pare ñëw taxaw bu arbitre bi sifflee day daw ci kaw Tapha Tine bul sonn bu arbitre naan prix mu dal si kawam. non bëy bu ràmb la mooy li may wax rek Balla bëy koy daw meeru daw bëy bëy bu ràmb la de waaw ndaanaan kulli fadirin la waaw te boo xoolee tey ba ñuy njëkk a seen combat bu njëkk boo xoolee da nga naan Tapha moo gën a pare moo mën te tey boo xoolaatee it moo mën léegi nag da nga naan tey la ñëwoon na le moom nga indiwaat tey rek ndax Balla moom amul kenn koo xamante ne dina jàkkaarloo ak yow di am lu muy source yow man nag mënu ma mënu ma analyser combat boobu li tax mënu ko analyser mooy damaa far comprendre nga waaw dama far dañu ñaan yàlla may ñu ndam. mën rëg rëg rëg. Ama Balde. ñu mhm. gis loolu sax xawoon na jur coow. ci côté adversaire yi. yow yaa ngi ci làmb loolu na nga ko gisee ñu gis coow loolu dafa commencé fréquent. Mhm. donte adversaire yi kon ni booy ñaar day bëre jox kii bëre jox. mais gisul loolu noonu ba tey dafa am ñoom te ne mënuñu koo gëm. Mhm. loolu noonu noo ko gisee ñu yenn ñi ñenn ñi ne rivalité la mais noo gisee. waaw xam nga nag loolu li tax duñ ci mën a sori mooy ñoom dañoo bokk Pikine comprendre nga ñoom dañoo bokk ndey dañoo bokk baay ama mun naa bañ a gis loolu Boy Niang mun naa bañ a gis loolu mais ñi nekk ci ginnaaw ñoo gis loolu ñoo gis ne xam nga lii day am leneen ak leneen lu muy indi comme si contour Modou Lo ni mu demee ñëw demaatee noonu ci contour rek dañuy liggéey ay xale lan kii day bëre jox yi kii bëre jox yi dañoo bokk ay adversaire kon tey am na loo xamante ni mënuñu koo mënuñu koo daw quoi non man gisuma si problème li tax gisuma ci problème mooy mbër yàgg na fay jël ñaari avance tey ak. Euh, Modou Lo boog bi muy bëree ak Balla Gaye dafa jël avance su Eumeu Sène. voilà bëre comprendre nga kon. merci kon loolu du dara si làmb dañoo dem ba maanaam dañoo daje fenn foo xamante ne benn loo la te loo boobu noonu tey Ama ak Boy Niang duñu bëre kon Ama war na mun a bëre jox Boy Niang Boy Niang war na mun a bëre jox Ama comme que Eumeu Sène seen mag tamit dem na tey xam nga ba bokk ak booy adversaire kon làmb noonu la amul lenn loo xamante ne tey di nga toog. di wax naan ay diw mu def war koo def diw lii mu def war koo def lu ñu def rek lañ war a def voilà. ma jeexalee ak yow sa benn mbokku mbër di Mama fan yii def na benn sorte boo xamante ni ñooy sama ak lu làmb Mama Lamine def ci euh, ci seexam ak moom ndeysaan jafe-jafe yi mu dund ci li nga xamante ne feebar yàlla. waaw xam nga loolu. nattu rek. faaw nga jéem a xoolaat bu baax a baax a baax xam ne natt bii mu la teg li nga ko àttan moo tax mu teg la ko mais boo ko attanut du la ko teg comprendre mu xam ne tey am na ko gën a méttile foofu si àdduna kon bu xoolee si lool rek war na mën a retourné wu waat reculé wu xam ne ah man jaam laa tey liy tegu sama kaw suñu borom la neex kon du ma jaral tey may bàyyi si li nga xamante ne nii moom moo may jariñ du du ma jaral tey xam nga may may am ama kenn xaar ma yàlla wala dara parce que àdduna moo tëddee nii faaw tolloo fenn fi rek mënoo xam ni la bëgg mënoo xam ni la bañ man daal li ma koy gën a dolli mooy mu gën a jàppaat gën a xam ne suñu borom moo fi nekk keneen nekkul gën a xam ne tey ni ngay toogee muy neex ba nga jàppee ne dootul naqari noonu ngay toogaatee tey xam nga mu naqari ba nga jàpp ne dootul neex. ndax loolu lépp mbir suñu borom la kon suñu borom bu dogalee noonu rek bu dara ñëw tey mu naqari rek nga bëgg a bàyyi ndax ba muy neex démb yaa ngi jàpp yaa ngi téye xam nga xalaatoo bàyyi xalaatoo dara ak lu mën a ñëw dal sa kaw rek danga naan ak ah, garaawul kon na ko téye foofu. xam ne àdduna noonu la lii du dara lii dara tey day neex suba mu naqari te lii ko dal nii xam nga daf may dal après da dal keneen kon dañuy ñaan rek xam nga suñu borom gën koo may xolug muñ ko waa làmb la làmb ju neex la ku ne mën nga daan sa morom waaw grand contre petit la ñu waaye te Siteu ñafe na xam nga rayante na ba war a mën a bëreeg Modou Lo Modou Lo tamit def na si xelam ne Siteu mën na koo daan parce bu demee ba jël avance am rek xam ne war na ko mën a daan nii taxaw nag naan ay Modou Lo Siteu mën na koo daan wala combine la wala déedéet yooyu ay deuxième la ndax Modou du combine dafa bañ jafet moo tax comprendre nga làmb la nag. waaw làmb la Siteu champion la Modou champion la que le meilleur gagne. may jeexalee actualité gis nañ réew mi euh, gannaaw bi nga xamante moom mooy président euh, wala dañ naan ex sax président muy euh, réew mi joxe ki nga xamante ne moom mooy. suñu président bees bi di Diomaye euh, Diomaye Faye mm-hmm. ah, ah mu nekk ci euh, góorum Pastef di félicité nag ñi nga xam te waa Pastef ñëpp mm-hmm. mais kon li ma wax rek c'est le Sénégal kii gañ mm-hmm. mais yow nga nekk Pastef macha allah ñi gisoon na ndeysaan nga ci def dox euh, bu bu mucc ay nan nga gisee instant bi situation réew ak instant bi am nga yaakaar ni la ngeen doon li ngeen bëggoon mën nañ koo am ci président bi toog waaw yàlla moo jàngalewaat foofu rek yàlla moo ñëwaat ak mëninam yàlla moo ñëwaat wone ne moom dong moo fi nekk kenn nekku yàlla mu ñëwaat wane ne nguur yàlla rek moo dul jeex képp koo xamante ni nii yor nga nguur xamal ne tey suba day jeex kenn xalaatul woon Bassirou Diomaye Faye comprendre lii day jàngalewaat ne Ousmane Sonko bu fekkoonte ne nguur moo ko tax a jug kon day lëbajawaat carte gi pour mu ñëw bokk mais Sénégal développé senegal jëm ci kanam. tey Sénégal kenn ku si nekk mën a gis sa bopp si réew moo ko tax a jóg ndax Ousmane Sonko da foo wane ne moom li may xeex nii ak li may xëccu ak li may reyante du pour man comprendre nga pour askan bi la pour maanaam bépp doomu Sénégal boo xamante ne yaa ngi yeewoo Sénégal xam nga li ma la wax moo tax may def lii ndax bu doon tey boppam ak boppam kase kon fa mu nekkoon mun na faa bañ mën naa bañ a lijjanti dara. kon tey Sénégal bu demee tey ba naan dina baax wala du baax ginnaaw yàlla grâce à Ousmane ko moo tax waaw di ko ñaanal nag gudd fan ak wér gi yaram di ko ñaanal li nga xamante ne tegu na seen kaw yéen bii nga xamante ne yàlla yéen na leen ko yàlla na yéen bi oyof yàlla na leen ko yàlla téeñal parce que tamit metti woon na metti woon na mais kon tey bu ñëwee ba demee nii rek sant yàlla la waaw yàlla la ñi nga xamante ne nag dee ngir lan Sénégal jëm ci kanam ñoo ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla xaare leen àjjana ba pare di masawu seeni waajur yi tamit ñi nga xamante nii xam nga dañoo nekkoon si condition bu baax nguuru Macky Sall tax tey kenn ku si nekk mënatul nekk si condition bu baax tamit xam nga ñu ngi lay ñaanalaat si condition ba nga nekkoon yàlla tegaat la fa waaw yàlla moom mooy dogal rek comme nii gis nga rek lépp leer na lii musul am Sénégal gañe boo xamante nii parti au pouvoir nga ñëw jëlee ko premier tour battre record bi rawee ko lu bare mut fee am waaw kon lii mooy wane ne jeunes yëpp takku nan te tey ñoom Bassirou Diomaye Faye ñoom Ousmane Sonko bu ñëwee te doxalewuñu li gars yi bëgg élection mooy ñëwaat ñu jëlee leen waaw baaraam bu ndaw bi rek mooy fale lii nii mooy fale ndax da ngay ñëw voté ñëw def nii rek ñu wane ne yow voté nga dem sa yoon kon lii bu dee ba nga xamante ne lii moo lay fal baaraam bu ndaw bi war ngaa mën a jox nit ñi cër. non jeunesse bi moo gagné ku ne xam na ne jeunesse bi moo gagné jeunesse bi amuñu ay carte ñu ngi topp Ousmane Sonko ñi ngi yuuxu ñi ngi def nii tey jeunesse bi ñoom ñoo ñëw taxaw dëggal seen bopp voté ba kenn ku si nekk xam nga xam ne man maa war a mën a fal tey ki nga xamante ne moo war a mën a jëlee Sénégal ci ndóol bi mu nekk ñu doxeloo noonu yàlla suñu borom bi jàppaluñu senegal jëm kanam waaye. la wax dëgg yàlla mu nekk koo xamante ni nag lu ñaaw ku dul joxe cër doo am cër dama koo sonal mais nekk na grand bu baax boo xam ni lépp lu ma bëgg ci moom da yomb di ko ñaanal jàmm yàlla aar ko yàlla sàmm ko xam nga yàlla wéree cër yëpp mu ñëw ñëwaat xam nga continuer li nga xamante ni moom mooy liggéeyam di wax la mooy kàddu mu jógi mooy di santaat yàlla bu baax a baax a baax di nuyu suma gambien bi nga xamante ne xam nga dafa ñëw xam nga rek waaw seet si ma bilaay mu doon loo xamante ne lu rafet la kon day gën a wane ne rek ñu ngi may gën a bàyyi xel bu baax a a baax di santaar yàlla bu baax a baax di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan senegal yàlla na fi jàmm yàgg di ñaan àdduna yàlla na fi jàmm yàgg di ñaan présent bii ñu am yàlla na ñëw yàlla oyofal euh, yéen bi senegal ñëpp gis seen bopp. yàlla bañ a tas yaakaar. waaw yàlla bañ a tas yaakaar Sénégal ñëpp gis seen bopp daal loolu rek lañ bëgg jërëjëf.